audu billahi min asheytaani irajim bismillahi irahmaani irahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi teewlu As-Samadiyya noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ci juróom-ñeenteelu jataay ci téereb Xalimag Leer ginnaaw bi nu waxee liggéeyub sëriñ bi ci mbindi xam-xam yi wax ci mbindi wesar yi tey dañuy dugg ci bunt bi gën a yaatu muy xasida yi am na moo ci lan mooy xasida xasida bu nuy tekki baat bi ci làkku arab mu ngi jóge ci baatub xasdu gi ak jublu te mooy li nit ki jubloo def mbaa mu jublu koo wax bu nu ko dee leeral nag ci ni ko waram xam-xame arut yi tënke mooy wax ju ñu natt ci nattukaayu aruud yi te mu tënku ci baxru yi nga xam ne moom lañu tànn ku ci waaye arab teyit bayti xasida gi jëmm ji di waay day ëpp juróom ñaar am ñu wax ne day ëpp fukk nun taalibe yi nun taalibe yi li nu baaxoo bu nu nee xasida wala bu nu waxee xasida yi Sëriñ Tuubaa rek li mu bind te muy wesar yépp dañ koy dugal ci biir dañ naan xasida yi rek Sëriñ Tuubaa moom tuddewul yooyu xasida wesar yi tuddewu ko xasida taalif la koy tudde wala téere li Sëriñ Tuubaa di tudde xasida ci mbindam mooy waxam ji nga xam ne ay way la mu ciy déeyaaleeg yàlla ci tudd ko ak sant ko di ci liggéeyal yonente bi salallaahu alayhi wasallam ci tàgg ko ak julli ci moom kon day mel ni bu nu waxee way yu muy deeyaaleeg boromam téere xam-xam ay way la waaye nag jubluwaay yi du benn weesar yi da ciy deeyaaleeg boromam waaye nag du ay way kon buñ ne xasida ay way lay doon mu ci deeyaaleeg boromam ci tudd ko di ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci julli ci moom ak tàgg ko sëriñ bi daa wax ne yéene na saxal ak tudd yàlla ak sant ko te doon liggéeykatub ngën ji mbindeef mu mel ne bayit woowu dugal na liggéeyam ci xasida nawaytu dawaama zikri wa shukri xaadiman li xayril wara ni'mal xasiinul muzayyanu léeg-léeg deeyaale googu léeg-léeg déeyaale googu nga xam ne mooy tudd yàlla ak sant ko dina ko woowee xeet liggéey boobu jëm ci julli ci yonante bi salallaahu alayhi wa ak tagg ko léeg-léeg mu tuddee ko tagg kese mu yóbbaale julli li wéral loolu mooy wax ji wax ne sama fàggu teef mooy tawxiid ak tagg yonante bi salallaahu alayhi wa sallam lépp dugal na lépp xasida yi ci biir kas bi ya tawxiidun wa madxun linnabi alayhi taslima xafuuril musnid bi xasida yi sëriñ bi dina ko tudde ak jaamu yàlla ibaada dina ko tudde it xidma ibaada ak xidma yépp sëriñ bi dana ko xasida yi loolu lépp day tegtale ak màggam ndax nee ne sunu boroom yàlla na nga dolli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal ak jàmm moom mi nga xam ne jox naa ko sama xalima ak sama daa ci ay bind yu jub diirub ay at ngir jaamoo la ko yow sama borom ak liggéey li yonante bi sallallahu alayhi ngir sa jëmm yow mi nga xam ne yaa ko gënal ci kaw mbiñ def yépp ala alladi lahu xilaami wa midaat muddata axwaamin bi xattin di dalaat lak wa xidmatan lahu li wajhi man ala wara faddalahu mu dee la wax ne sunu borom nga def samay julli ak sëlmal ci yonante bi salallaahu alayhi wa mu doon gën ji jaamu yàlla fi yow wa jaal salaati wa salaami xayra ibadatin lakka ibadatin lakka tu saffi mayra kon loolu lépp rek di tegtale màggu xasida di tegtale it ci yooyu muy jëm muy ibaada ak xidma xam ne sëriñ bi moom abdullahi wa xadimi rasulihi gi sunu borom def ci ak mbaaxam da ko jaare ci liggéey bi nga xam ne moom la ko doon liggéeyal ci tudd ko waaye da ko jaare ci liggéeyal bi nga xam ne dana ko liggéeyal yonante bi salallaahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.